asalaamaaleykum mbokki Sénégal yi asalaamaaleykum mbokki amateurs yi asalaamaaleykum mbokki bitim réew yi dikkati na nag yéen fii ci télé bu mag boobu nga xam ne mbay moo lëmbi réew mi ngeen ànd ko seen mbokk seen xarit Baye jaal Peex may jégalu bu baax amateurs yi di jégalu bu baax mbokk yi nga xam ne ñoo ngi toog di ñu seetaan tey xamoon ngeen ni waxtu wi dafa xam am tuuti retard. waaye foofu laay profité rek di nuyu ki nga xamante ni moo gay nañ dolor gi muy directeur général Dame Dieng mu yàlla baaxal mi mu ñu dénk Adja Adja national petit compte lam xarit daal amul ma ngi génnaar soppay Alassane Pedre Alassane Malendo Alassane maam jonn waale yi ak Pedre bi daan la ci géej gi tey nag hmm. dama leen defal surprise bu rëy damaa indi kenn ci course hippique indi kenn ci géwél communicateur traditionnel indi kenn ci cosaan indi kenn ci samay mbokk muy alaaji daa mbay peex mu ngi nii toog moom ma féete ci ko rek càmmoñ gi waaye alaaji mataar nee naa leen chaque euh, chaque jour ma ànd koog moom mu féete ma sama ko rek ndeyjoor alaaji mataar maa ngi lay nuyu jërëjëf Baye Sall Peex euh, di sant yàlla rek julli ci yonent bi nii fi nga daan nuyoo nuyu suñu directeur Dame Dieng nuyu suñu directeur programme mm-hmm. ki nga xam ne mooy Ibrahim Touré mu alaaji Jaaju Touré nuyu suñu invité bi wax naa ne bu ñëwee rek bu ne dàng mbay ñëw na alaaji dàng mbay bu peex kon delloo waat nga mbattu ci ndaa la li course réere woon léegi ñoo ñooy mag ñii nga xam ne buñ masaana way rek course neex nuy suñu techniciens yi nga xam ne talaata bu ne ñu jàkkaarloog ñoom muy ñett ñi nga xam ñoo nekk fële bu émission bi jekkee rek ñoom la Baye di la delloo kaddu gi ndax waaye ni nga ko waxee rek jéggalu amateur yi ndax nag du mel ni vingt deux heures waaye boo leen gisee lii rek xam ne changement programme moo xew bay sal peex jërëjëf alaaji Matar nee naa leen tey dama leen indil alaaji Danga Mbay mhm. bu peex mi ngi ni toog alaaji Danga maa ngi lay nuyu jërëjëf Baye Sall bég nañu lool kontaan nañu lool it nag bi ñu santee yàlla julli ci yàlla Muhammad mhm. sant sunu ñaari waajur di sant sëriñ Tuubaa Mbàkke sunu sang ba di sant it sëriñ Cheikh Coro sëriñ Cheikh Coro Mbàkke bàyyi ba sëñ Bas Coro sama sang ndax sëñ Bas Coro sëñ Cheikh Coro ko jur sañ baaraako ko jur xaadim yi ci penc boppam bal it bu di sëñ Mbàkke Maara di nuyu peex gëm a xëyee di jël di jël nuyoo bi teg ko ci loxo Alaaji Pambay sama xalifa ak Tamsir ak Modou Mbàkke ñu joxoon ma ko dëkk ba bépp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol seexu sa chef du village su peex di ko ñaanal yéen bii mu yenu yàlla na ko woyofal ci jàmm di nuyu bokk Sénégal yëpp di nuyu it sunu bokk yi nga xamante ne bii ñoom la nekkal fii ci dëkk bi ndax Baye Sall da ko baax mbay di ko ñàkk ñaan di ñaanal alaaji Ablaye Mbay peex yàlla bàyyi ko suñ kanam ndax alaaji Ablaye nit ku baax la. waxoon naa ko jàngi peex ni ko danga nga noo raw ba noppi nit ñu. demoo bàyyi te boo demoon bàyyi noonu yàlla wëccu nu. waaye loo am ni nga ko peex bokk nga ko say bokk. yar nga say doom yar nga say rakk tëng nga leen ci yoonu baax. kon bay noo noonu koy ñaanal fan gudd ànd ak wér. di nuyu it nag. sama bokki kër moo Abdoulaye Seye yi jiital ci président Magu Mbow président chambre des métiers bu Dakar. di nuyu gouverneur bu sëy na bu géey nuyu parfait bu yëmbal ñu di ko wax xaadim géey di nuyu sama bokk yooyu yëpp di nuyu sama bokki Touba Mbel Goor yi nag di nuyu alaaji alaaji Siré Silla di suñu bàyyi di nuyu alaaji Modou Maram Sarr di nuyu Pa Omar Silla ñu jël nuyoo bi sédd leen ni ko Mbel Goor gépp nag émission bii nag di nuyu Seexuna Silla ak Seex Fay Silla ak Baye Sylla sama waa ñooy fekk kër Ndiaye Lo ak Lamine Gueye di sama xalifa di sama mag ak Baye Samba Gueye ak Ndiaga Gueye si bi ak Mbay bi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal nag fan wu gudd waan ak wér di xamal ni leen émission bi commencé nañ ko ci bisimilah rahmaani rahim yàlla nañ ko yeggale ci alhamdulilah rabbil alamin sama rakk bi ma ko tuddee nag muy jiili Sylla di rek seexu naa Sylla ak ñàkk sikk alaaji Mor Talla baayam du tiim du gànt du saaga du tas yaakaar mbokki yaayam alaaji sira ak mbanga ak alaaji Omar Boussa ak Malick ma daa jiite mbelgoor Modou Mata Thiam ay seen baay Modou Mata Thiam sa maam ak alamata Thiam Birame Fatim lañ jur ma nga mbelgoor Birame Fatim Fatim daw dërgal ko jëm ba sa bàkkar mbokki yaayam jaagawaali salma si laay sa ndey bàjjan faat jaay ndeyam Fadja ak Ami Jobbe ak Khadija ak maam ak sëriñ Koddu Xusaa leen jur Koddu wey ne sa maam ak caani Meysaak ab sëriñ Bamba jëri ma ca Tuubaa sambaloo bi laata njaay yu dumbe taal si yaat ma sa njëlbeen xoole say waje ngeer wa maam Fatim Sàmba lañ jële woon peex yóbbu ko mbel goor dénk maam moo di mati caam mu taaloo ca alaaji Mari ak alaaji Umar Busa ak Mor Taala ak alaaji mbàng ak alaaji sira ak ball mëti ak kumba ak bintaay seen jigéen bàyyi saal jërëjëf alaaji danga xam naa da ngay nuyoo rek waaye am na lu ñu min ci sax lool loo xam ni xam naa dinañ ci ñëwaat ci kanam ah, gis nga nag alaaji Matar tey nag ah, gis nga émission bi ni mu ni mu ala daw be ndax ah, xam nga nii mhm. waa pex yëpp mu ngi toog di ñu seetaan très bien kenn ku ne mi ngi toog di ñu seetaan mhm. mu am suñu mbokk suñu xarit bu baax di kenn ci réew mi. kooku dootu ma wax sama diggante ak moom parce que min nga suñu diggante ak moom. Mm-hmm. muy Samba Tall. la ilaha illallah. Masati borom bay daan Birame Fati Baye ma nga misis. ñoo ànd ma ak yow xam nga barki démb ñoo ànd man ak mm-hmm. nii dafa am lu doy waar la xaw Kaolack. lu lu lu mu defati. lu mu defati Kaolack. ndax waa Kaolack ñoo ne ko dañ lay sargal. ah. lay lay te terrain bu mag ba. ñu mm. Samba Tall dañ lay sargal. Mm. bi muy doog a tàbbi Kaolack. Mm. amoon sax ko bañ a ko nangu. waaye léegi ñëpp d'accord nañu Samba Tall. Hmm. mooy borom kaw la. loolu nag. Hmm. su ko amee jëfa tax. Hmm. Serigne Touba day jox ci kër gu mag si njaareem xeru sàkket bi mu romb mu ne ko bul fàtte Cerno waa kër loolu jëf a tax. kon nag Samba bu jëfee ci Kaolack ba Kaolack gépp nangul ko ne léegi Samba Tall mooy borom Kaolack samedi bii nu jëm waa kawla gépp gën di ko sargal loolu jar naa wax. ma saati borom bay daan xam naa ne sax bëgg naa ñu ànd dem kaw la loolu sama bis yow dama lay yóbbaale ndax Samba Taar loolu Alaaji Mataar jërëjëf Baye Sall euh, tey góor gi fu mu génn mhm. neex na lool ndax wax naa ne tagg day yokk nit jom day yëkkati nit siddit mhm. ndax la ngoon a la tiir keroog ba muy dem euh, fi nga xam déqale dan dan koo dan koo jiiñ mm-hmm. waaye xam nga dama koy wax émission bu ne mm-hmm. sa maam bëkkëri ko mu njaay gànn nga xam ne ba muy dem sambe da doon dajal waaye bi mu ñëw dañ koo sëf te fas lan ko waral li waral loolu mooy géer yi dunoo jaar ci kawam ñu doon jaar jaar jaar ci kawam mm-hmm. peex jom yàgg na fa te géew la peex ku ànd ak jig la na kun ànd ak danay xam yaay kenn mhm. ndax lii mu wax mhm. wax way na way na ku baax jël mhm. émission bi way ko ci ndey way ko ci bàyyi ndax lii muy géwal waaye léegi nag da ngay dégg ñu ñenn ñi taxaw rek ne la borom borom mu wert bi wala borom borom mu gën bi wala directeur <laughs> yaa baax bàyyi Mohamed <laughs> Chéri Adja waaye géwal bu nga koy wax lii la ndax kamay way bu ko seetaanee xam na ne géwalam toog na tey géwalam toog na te xam nga Baye course dafa baax woon lii ñu ngi sol lu rafet mm-hmm. wax na léegi góor gi alaaji lay mbay Peex mm-hmm. ku baax loolu géewul mun Muntaxa mm-hmm. nga xam ne ci moom la ñuy roy ñun moo tax ñu bëgg course waaye Baye Sall fi may daane lay jóg gi xam nga le ministre de l' agriculture de l' équipement rural et de la souveraineté alimentaire alaaji Samba Ndiobène Ka lan ko fa jàmbaar Samba Ndiobène Ka dafa ñëw nag cinquante cinq mille parrain la ñu jox région de Louga mais mu jaañ fa da min ko teg trente mille parrains la euh, Samba Ndiobène indi teg ci loxoom vingt cinq yi la Kébémer ak Louga indi waaye trente mille yi la Samba Ndiobène indi. Mm-hmm. yemu ca yëkkati dix neuf million na ouverture école yi nga xam ne am na. waaye daara yéen laa ko jagleel dix neuf million yi nga xam ne diggante kay ak lépp mu dimbale waaye yemu ca promoville bi nga xam ne fa mu jaaroon fàkk ko rek. defar ak nag ñu ngi koy tëli trottoir yi génn na. waaye kooku kon dañ koy ñaanal yàlla wax naa ne ban na jatu leen socc taxut ban na fal leen Amadou Ba socc euh, Samba Ndiobène taxut bu na cinquante cinq mille euh, parrain trente mille yu jógee département de Linguère kon Samba Ndiobène dañ koy ñaaw wax ne na ngontam avion. du ngontam 404 ji sama Ndiobène Ka dana am victoire le 25 février 2024 incha allah waaye Baye Sall daana rek ci soxna Sall sama xarit sama jarbaat wax naa la toujours na dembowaar joor ak bunaama joor ak sangoona joor ñooy maamam waaye boo duggee jolof Alburi Seyni bu di maamam nga xam ne cinquante pour cent préférence nationale mi ngi Dubaay waane dama damay fal Ablaye Sylla waaye daf cee ànd xale bu am job muy Cheikh Mbacke mi nga xam ne daam daam Ndiaye mooy bàyyam gànkal Amadou Mokhroji na ko foo dem dama lay dar soxna waaye soxna Sall mu sëy na bu ay dara kooku nag wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal yàlla mu bëri teranga lool waaye nag bés bi ñu ma tubbee la deux daf cee def teranga yëkkati teranga ju bari jox kon soxna dañ koy ñaanal yàlla defal ko ndam bàyyi ko Ablaye Sylla jërëjëf Alaaji Matar bàyyi ko Ablaye Sylla yàlla na ko yàlla defal ndam mm-hmm. waaye li daw la sama yaram muy la léegi bi nga tuddee jàmbaari fàkk tëdd muy Samba Ndiobène uh-huh. maa ngi nuyuwaale bu baax El Jum Daara. ah laboratoire Yacine borom garab. laboratoire Yacine borom garab yi. Mhm. yàlla da ko teg ci wetu sàmm Ndiobène. Mhm. muy liggéey liggéey bu rëy. Mhm. nekk gor nekk garmi nekk jàmbaar. maa ngi ko nuyu bu baax te di ko ñaanal. yaa fi waaw noonu laay profité tamit di nuyu ki nga xamante nag ah mooy directeur général. kon SAPCO. Souleymane Ndiaye. démb dafa indi parrainage am moom it. te saison APR. li mu def kenn defu ko. nee naa ko li nga def kenn defu ko. li mu indi démb kenn indiwu ko. Hmm. ba pare nee naa ko dangaa bàyyee gars yi wax yi di jëf. très bien loolu baax. Souleymane Ndiaye. Hmm. boo ko séenee mu dem bu laajte. Hmm. li gën a doy waar. nee naa ko da ngay ndaw. ba pare ànd ak ndaw yi di liggéey. parteem ñeenti at rek lay doog am. Mm-hmm. waaye démb bu la yàlla dimbaloon ba nga tàbbi ci sa appel ba. Mm-hmm. fu ne nit jógee na fa ñu ne ko foo jëm mu ne Souleymane Ndiaye laay wut si. Mm-hmm. alburi maama nga dooso. waaw gërëm penn ñee maama yi ngir leen. layti cukkali cukkali njëglaan moom. déedéet waaye nag alaaj jàng dafa am lu min ci yow. waaw muy la ñuy waajal bis bu rëy muy gàmmu peex. Ah, ah, ah, maa wax ni yow tey am na lu ñu min ci yow xam ba mu saan ñëw da ngay way xam nga géwal dañ ko xam ci way may wax nan nga préparé bis bi. bis bi daañu ko préparé. ndax gàmm googu. dañoo juddu fekk ko fi. sunu maam sëriñ tubaa kere ba mu ñëw peex maam Mahmoud Begre la ànd. maam Mahmoud ni ko euh, Serigne Touba Serigne Touba ni ko Mahmoud mu ni ko Mbakke. mun ko dula siise laa jëm ku ma ca mën a yóbbu tuddoo réer. maam Mahmoud ni ko man. mun ko jiitu maam Mahmoud di cas yoonu peex. réer Serigne Touba ni ko Mahmoud mbaa réeroo. mun ko réeru ma di Mbakke. léeg mun ko Mahmoud baa réeroo mun ko réeru ma di Mbakke ba ni jaar peex. ni ko sëñ tubaa damaa réer peex réer ma bëgg ku leen gindi fii la sama ndey dëkk te foo dem seen aaju faju kon mu bëgg nga dimbali peex te ëllëg sëñ tubaa kàbbar julli fa juróomi rakk ne Mahmoud lii sama kanam da ay armeel la maam Mahmoud ni ko waaw mun ko ñu faatu bañ denc leen fi di xam ne ñëw naa peex ñuy faatuwaat sama gannaaw ci peex it daañ xam ne ñëwoon naa fi sëñ Mourtala it taal otoom ñëw ba peex jàng peex dugg ci kër Ablaye Mbaye ñaanal nit ña. nu fab ndox ya sotti ca bërigo ya kenn ku ci ne naan ci. kon peex jàng yooyu. yàgg na fa dëkk bu sëñ tubaa dem. sëñ talaat dem. te nu di ay murit. yooyu jàng yàgg na fa. may potoxlu nag di nuyu. bàyyi si la. sama benn xarit. di sama doom nday ca kër Ndiaye loo nu bokk bàyyi. bàyyi ay meeru baayam. bu bàyyi ñoom masaa jaaxle bu ñu jàkkaarloo moom lu ñu jaaxle da leen di bàyyi. ay meer nu ba maamam ak makam nu ba caam maak jaxeer mhm. maa ko ci faa biram leen jur ma nga mbel goor mhm. maa ko faa biram maa ko jëndayee ko jur mhm. maa ko biram si la rey jaalu yëri mbel goor magu mbaw sama waa ji seex mbaw la bàyyam tudd seex awa ak macaam awa gaañ yaasin jóob xuja sekk ak njaay gay ma yaasin mara lañ jur ma yaasin mara sa maam ak njaay sall mara ak jëndul ju mara mbay mara caam sene ba waaye Papa Tall nag. Baye Moussa Tall ko jur moo doon yilimaanu wilaas. Moussa Tall. kon Njóobaan Màgga Tall mu Madu Xuja Mbow lañ jur xalfaan daar bàyyi ma nga peex suñu dëkk. Dun Tall jaaga Mbow bàyyi ma nga ci joor ga ci njaareen. xàlla jaaga. ak Dun Tall jaaga ak yaar jaaga ak Xuja Mbay. jaaga Mbow faa caam Tall di Tall du mu sàmm ku kaari borom sëb ja. Papa Tall Omar Tall. Omar Tall ko jur. Ayda Samba Toojaa ko jur. Ayda Samba Toojaa ak Mariama. Samba Toojaa leen jur. Samba Toojaa dërgën naar maa ko jee jalge. dëgg na ko jëm ba waxtu baakar mbokk yaayum jaagawaar yi. te. Baye Dina Dieng ak Baye Samba Dieng. ak Baye Sanu ak Baye Cheikh dañoo dem waaye bàyyi nañ fi ñu baax. Baye Cheikh it yàlla na ko fi yàlla bàyyi ak Baye Ibrahim. ndax kër Baye Diine. boo ca génnee yu Dieng. Mm-hmm. ak Bàcc Dieng. Mm-hmm. ak xaadim ñi ñëpp dañ leen di yóbbaale kër Baay Sàmba nga génn ca Papa Jeng kër Baay Ibrahim nga génn ca ñanga kër Baay Seex Jeng kër Baay Saanu Jeng nga génn ca Seex Jeng ñooñu nag bii gi leen jur bii gi ma joor ngoone bay jëmb saa juuf maa juuf jëleen tabara ma gii néeb ak maalik ma gii néeb ma yaani ko ma ca gëti bii géeg njoogoo ndey ak bàyyi lañu bokk mhm. njoogoo jur awa ba mu jur xaadim awa ba sëñ xaadim awa dama ni bii geeg njóog ndey ak baay la ñu bokk. njóogoo jur awa mu jur xaarit awa ba. jur faatu faal. mu jur diine ak sàmba ak saanu. noonu lañ demee ak sëñ xaarit awa ba. dëgg dëgg. baax nag. ab jant la. nga di sama nga di sama sang di ko baax. invité ba ba noppi solol ma. lii ma sol lépp sama sang bi ma ko jox. te sama yaay moo topp ci yi ba mbay bàyyi. muy Saliou Mbaye mii ma jàkkaarloo. kon mbay maa ngi lay ñaanal. ndax ab sang ay ay sang boo ci amee yoonu màkka. di ci am ay yére di ci am ab xaalis. mënutoo fay say sang. te lool lañu may defal. na kon kami naan ma ci ngi seen waagaan maa ngi lay ñaanal fan wu gudd waa dëgg yàlla. wooyu woowu nga bëgg man naa ko waaye sama baat dafa xaw a te mbay yow fu ma la mas a fekk rek nga teral ma. moom mi kon ka euh, tu kii bi nag ki ma ko tuddee. muy jiili silla mhm. day dafay sama rakk bu baax mhm. di rakku seexu naa silla di rakku ñàkk sikk mhm. di rakku galas am ci man yëg lool di ma teral cam ñoom Fatim am ak Marème ñoo ñu ma tegale Mortala yi seen baay Mortala ak Alaaji Mor bu sa baayu seexu naa mi may dimbali ak Malick ma daa jiite mbel goor bàyyi mbàng si la ma nuy fekk mbel goor mu dinu mu dinu dalal dinu teral Modou Mati Thiam ay seen bàyyi alaaji mbàngaat ami jobey ndeyam ami jobee fàjja ak kotu xusaay seen ndey sama xëy tàng mi si bii nga ko ca taal alwana yi seen bàyyi noo ngi ñaan di ñaanal it bàyyi séré si yàlla bàyyi ko suñ kanam bu baax di ñaanal peex gépp góor ak jigéen mag ak ndaw ak tundoo mhm. yàlla bàyyi leen suñ kanam mhm. ndax mbay mhm. foo juddoo fekk fa baax baax fekk la fa loo fa am def ko fa te wax naa ni dem ayul xam nga lu aay dem dem bàyyi ko doye di waaye boo demee bàyyi ko baax sa dem ayul waaye at ba la sa bàyyi bàyyi bu dekki woon tey bu duggaat ci biir dana xam ni dem na waaye bàyyi na fa ko baax kon mbay noo ngi ñaan yàlla guddal fon wi yeggale yéene yëpp amiin mbay ah way woowu nga bëgg nag hmm. dana am lu ma ci yëkkati léegi hmm. ndax xaadim jëng ñoo ñoom moo tudd ak ñoom bàcc hmm. ñooñu dañuy samay géer waaye lu ma ju lu ma am mbaa ma fu ko rek ci askanu ñeeñu askanu géer rek laa ko jëlee biram faati naamoon naa la biram faati pedda Birame Faat ma Birame Fatim sama baat dafa dee. waaw ndeysaan dina ñëwaat sax ci yow. waaye da ngeen ñëwaat ci man. dina ñëwaat ci yow. waaye lii ma leen di wax. wax leen ni ñuy juddoo. Hmm. ku yow mënoo ko. moo raw way. moo raw way dëgg la. te lii ma leen wax ku lu man doo ko wax. waaw bu ko déggee rek yow la gis. natt naa saa bopp nag sama baat dee. Hmm. waaye ñoom. Hmm. askan wi juddoo di askanu xalmbaan askanu mbelgoor askanu tëgg ñaang. askanu mesere tëgg. askanu bandeñ. askanu kër moo rab laayu sëy di nuyu sëñ Mbaye mi sama waaj ak sëñ Samat maa ngi koy teg seen loxo ñu joxal ma nuyoo ba bépp waa kër sëñ moo rab laayu sëy moo ni xusa di kenn ci man nu bokk bàyyi maa si jamono bokk bokk mu mu gudd mm-hmm. Saliou may sa bàyyam mm-hmm. mook sama bàyyi woon mm-hmm. bàyyi la na ma doomam bàyyi la naa ko sama doom tuddee naa ko sama doom kon kooku kenn la ci man Saliou may saay bàyyam mbokk yaayam siidi cam mhm. ñalmi ngaay mhm. biraamanta mbow seen bàyyi ngi ci bétuwaar bi ci Dakar mhm. kor kodd wey ne ak caane may ab sa gën ba ama jëri ma ca Touba sambalo bi laata njaay nu bétaal isi yaat ma si ñël benn xoole say waji ngeero bàyyi sall jërëjëf alaaji tànge xam naa ne sa yaram ne tàng dafa tàng sax waaye léegi da ngaa wax ba tudd alaaji muuri xusa bu ma duppee Saliou nag bàyyi muuri xusa foofu ah, war naa cee addu moom mu nekk suñu mag ndax fi ñu pàmbay waroon a féete wala bàyyi ba waroon ñu faa féete rek mu war a féete nañu fa ak aada ak njaboot gi yëpp hmm. di nuyu waa kër gi yëpp di nuyu as mbaw di nuyu nday am aada di nuyu ki nga xamante ni mooy ñaaña ah, di nuyu njabootam yee bàyyiwuñu kenn di dem ba ndar di nuyu ki nga xam ne mooy joor xusa dem raw lu nuyu ajaratu ngóone waaye nag dafa am ku baax muy kat ku am jom ku bëgg réew muy falluloo bur daal yi <laughs> boo déggee ñoon ko buur daale gaynde kokki uh-huh. yàlla moo ko baaxal mm-hmm. muy borom xam-xam mm-hmm. mën a dimbalee waaye mën a teral doomu aadama mm-hmm. fàlloo boo ko sérée muy dem bu laaj ci teral nit rek la nekk am yéene ci réew mi sëq ak lu bari borom réew mi waaye nag du ku mën a denc secret du ko mën a faj soxla di jaamukat bi yàlla ci jaam yàlla yi moom tel naa comprendre li Serigne Touba waxoon ne jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi fàllu tel na ko comprendre. Hmm. buur daali gaynde ko maa ngi koy nuyu maa ngi koy ñaanal maa ngi koy jaare alaaji Matar. jërëjëf Baye Sall. Hmm. góor gi alaaj Dàng Mbay dafa woy léegi ba tudd Mbel Góor. Hmm. di woy woo xam ne wu yàgg la. ndax wax naa ne lat sukaa bi ngooni jéy keroog ba nga xamee ne mi ngi wër bëgg Kajoor ak Bawor ba mu jaaree Mbel Góor. fekk fa dogo. nga ne la ko nga ne gul rëy ga. géew la ko def. géwél boobu defoon loolu bi mu jëlee réew mi bi mu ñëwee ba fekk doog a toog dana ko ndënd mu rëy mu ngeen di tuddee li ngay tiim ni di ko tëgg nu mu tudd mënu ko làmb mënu ko def naa la ngay fara làmb kon tey wax naa la tey géwél ñëw na koo xam ne nii mën a fàttali ko démb ko sa peex ak lay nuyu mi ngi woote doomi alaaji sam euh, alaaji Ablaye Mbay di sama piété ci kër gi mi ngi lay seetaan nee na jàkkaarloog yow waa kër ga ñoom ñëpp a lay seetaan hmm. waaye seen yaram daw na yaa ngi indi tey dem waaye tey li nga def rafet na waaye tey ni la Baye def ab yi hmm. taarkàlla macha allah <laughs> taarkàlla macha allah hmm. waaye Baye xam nga wax naa la sama xarit la secretaire général de l'APROSI alaaji Boxum Sow <laughs> mënuma koo ñàkk tudd xam nga bërki démb dafa woo dafa woo waa bërkee ji non bokkul moom code nga ci def. non bokkul doo sama day sama xarit. engagement nga ci jëm. chéri Batour Aydara. wallaay ndeysaan. góoru na fi sow. Mm. goro yu ba sow borom sukk sim. Mm-hmm. dafa woo ñëpp barkee ji ne nan ma fa fekk. Mm. nga xam ne parrainage bi def naa ko. waaye duma ma ci yem damay wan ne Amadou Ba samay mbokk pare na samay xarit pare nañu. Mm. Amadou na ko danaa ñëw waaye dama lay du ma ñëw waaye sama soxna dina ñëw. yebal ko ma madame ba ñëw teewee ko. boxum génn barkee gépp wan ne Amadou Ba daal danañ ko fal premier tour waxoon na ko. Mhm. loola ca la ne. Mhm. taxaw ko waaye Mamadou Ndaw mhm. inspecteur bu mag bi. bi nekk impôt domaine. di sama xarit. man social. nga xam ne ne wax naa la barki démb dañ ko tuddee final bu rëy ci Daara Jolof. mu def fa teraanga defal basket bi defal football bi. nga ouverture école yi ñëw mu jël xale yi ñoom ñëpp koñ bu ne mën a jël jox leen ma ñett élève bay jànja mu jox leen euh, ay ay fourniture jox leen ay cahier yamu ca mu ñëw ci biir octobre bi gis poste de sant bi nga xam ne moo nekk ngën neen mm-hmm. octobre rose bi ñu ne pour problème mu cancer yi mm-hmm. mu ñëw na pour dépistage bi mm-hmm. ñëw ci affaire fas yi ne dana def vaccination kon mbuus euh, ki nga xam ne mooy Mamadou Ndaw mu mbuus ndaw di xale wax nga léegi fu la baax fekk nga foo ah. fekk baax baax fekk la fa loo am yóbbu ko fa kon moom waxu ñu naxee mbaay kon tamit dinaa nuyu alaaji Baara Thiam nekk kilifa ca douane mm-hmm. alaaji Baara Thiam ñu jox ko athlétisme bi mm-hmm. nga xam ne moom tamit mu koy doxal nekk ko ku baax wax naa làbb coro yaasin borom garmi bu woy wa demee mën naa si ci moom mm-hmm. di jàmbaar ba mu nekk nag kilifa ci douane waaye ñu tuddee ko alaaji Baara mu dem màkk moom tamit ñëwaat di sama xarit di lépp di la seetaan chaque mardi bala balaa tëdd danoo pare kooku dama koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm bay sàll amin amin waaye xam nga foog ñu waxtaan ak amateurs yi ndax euh, bu ñu musaan waxtaan benn cinq minutes. Mm-hmm. dañ leen di benn benn benn course. Mm-hmm. bu ko defee bu course bi daawee ba teer ñu commentaire ko. Mm-hmm. waaye tey waxtu bi daf ñu xooj. ba pare amuñu élément yoo xamante ni mën nañ ko dawal. ñu ngi leen koy jégalu rek. wax ni leen tey dañu am gan. moo tax ñu programmer ko nii. mais xam naa ni mardi bii di ñëw. incha allahu rabbi dinañ leen defal ay course yoo xam ne comme ni mu daan demee noonu lay demee di wax nag xam nga alaaj dàng gàmma pex gi dañ ko jàpp ma tudde ko ay ay ay jàmbaari fàkk tëdd kooku pare ne waaw ki ma ko tuddee waaw mooy borom kër gi mooy directeur général la tudde ko ku baax mooy parrain bi moom laa ko tuddee ndax ni ma def day ànd ak national ndax nit bu la jàppee téye la hmm. yow da ko jàpp téye ko moom dafa ma jàpp téye di ma dimbali. Hmm. xam maay kan. Hmm. lu bari mu ma ci côté di ma woo di waxtaan ak man yàlla boole ma ak soxnaam nag. Adja National Adja National. Hmm. nee naa ko Dame Dieng mooy mooy parrain bi. yow yaay xamuñu ko marraine bi waaw mooy marraine bi. mooy marraine ba mooy marraine bi. petit kontaan lam xarit daal Amadou Mbengue Guèye Naar soppe Alassane Pedre Alassane Marendo Alassane maam John Waale maamam. ak Pedre bi daal di liggéey gi daal bisu peex bi yëpp maa ngi ko yëkkati daal teg ko ci loxol Dame Dieng ak ki nga xam ne mooy Adja National. Mhm. soo gisee nag lii ma sol El Hadj mbay Mbaye. ndeysaan. mu baax ni fi ne mi ngi ci Italie moo ko yëkkati terale ma ko. Mhm. te du ma ni du ma ni ci moom. mën naa ni sama bataan la fa baax lépp cay des ne El Hadj mbay moo ko jënd di ma ko jox. gor nag bu dee teral war nga am gor gor na ko jërëjëf. Mhm. maa ngi ko nuyu moom it bu baax di ko wax gàmm gi sax moom it. alaaj Alaaji Assane Mbaye parent la ci. Mhm. di wax ni tamit ki nga xamante ni mooy Samba dafa ànd ak rakkam. muy kat muy Los. Los Los Tall. dafa nekk dafa nekk ci ginnaaw dafa nekk ci kanamu magam. ku baax ne ci ginnaaw magam. bàyyiwul magam mu wéet benn yoon. boo boo gisee Samba muy dem boo avancé deux mètres gis Los. Hmm. mag nag soo ko amee te jege ko sës ko ci doo ko rëkk. Hmm. ndam lu Samba am. Hmm. Los loxoom ngi ci biir. maa ko nuyu bu baax. ma Fatim borom bay daan biraam Fatim bàyyi ma misis alaaj dàng jërëjëf Baye Baye Sall wax nga lu baax alsaan mbay moom mu lu jox yére sa bor rek la la fay moom mi yooyu mbay loo am da koy joxe teral nga say sang teral nga say goro sa yaay gërëm na la sa baay yóbbu na sa ngërëm kon loolu nga wax alsaan mbay moo ne ci yow man na gàmbu peex gi man xam nga ku ma ko tuddee Aliou Guèye laa ko tuddee nijaayu Seexu Naasin la Aliou Guèye Aliou Guèye mu maam xari si la ak Pape Bakary Guèye man moom laa tuddee gàmmuk peex gi mhm. Aliou mi ma ko tuddee mhm. Bakary Awa Jaay baayam mhm. Aliou mi ma ko tuddee moom Mor Joojoog Njaga bu teel maa dem Bakary Awa Jaay seen baay Bakary Awa Jaay mot sena ba camion asama dàgg yaay ay meru ak Matima Fall ak Joor ak Amina ak njaayu géey mhm. jaaji mbéri li jur ma nga tëgg dog yi mhm. jaaji mbéri ak maa njaayi mbéri laa na xol yaas bi nu demandoo yaram gànn ak demandooy bége maar mhm. man Aliou Guèye laa ko tudde <laughs> Aliou Guèye ndeysaan aji xari si laay ndeyam na dafa amoon loo na bàyyi seen bàyyi jaga soxna ma pene si maa jaari ngoon waa dafatim caam man Aliou Guèye laa tudde jàngi peex yi di dem nag ba kër ma turé di nuyu sama bokki taal yi fa nekk di Ngóoda Taal ak sëriñ Taal ak famille Baye Baye ma jabel Taal ak Baye Serigne ñoom ñëpp maa leen di nuyu di dem ba Pire di nuyu waa kër Baye Moussa Taal ak waa kër Baye Baba Taal ak waa kër Baye Cheikh Taal ak waa kër Baye Ndaan jiital ca xaalis Taal may seen mag ak waa kër Baye Aset ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ngeen xam ne yéen ñëpp émission bee xat waaye sama xol a ngi si yéen nga ni loo waxoon gàmmu peex loo waxoon gàmmu peex alaaji ablaay di cérémonie bi loolu dama koo namm dama ne alaaji ablaay ministre yi ñëw peex ak député yi ñu baax ñëpp gënuñu la hmm. ablaay ni ma nga ni man ko gënuñu la loo am indi nga ko peex bokkoo peex léegi ko dara wàccunu dëgg nit ñi fi nekk ñëpp ay alaaji la ñuy wooyee hmm. te yaan woon yonent bi bu ñu nee tey ji la tam xarit nga yeew yent nag ci penc mii. Mhm. kenn ku ne ñu peese ko juróom benn kilo nga dem sa kër nga jox ko lu bu ca boole. Mhm. bu ñu nee tey la korite nga def loolu. Mhm. kon ñii ministre yi gënuñu la. waaye Cheikh Mbaye sa bàyyi. fukki yaay yi ba bàyyi bàyyi saal bii. ak ma ca Kinde yaa ngi monsieur Diama Fatim ngoone càmm ñoo ajara toog nday mbay sama yaay. Modou saa su ma seen bàyyi Birahima yàlla deen ko doy bàyyam. Birahima yàlla deen ko la juma jigéen maar caara ak jay jayati jay tëgg nañ ko saaj laax baa ñaaw koy njaay di bàyyim tudd maa daay sa ndey màggat bëkkëre yi day mbokk yaayam penn naata lu jur baraama sama baay bëkkëre ku ma njaay gànnaa leen jur ma des sàmm waaw ah, bëkkëre ku ma njaay gànna ma ca sàmm bëkkëre ku ma ndooy ndak ndak moomee moo jur xëri njaay mu jur bàyyi sàll mii wallaay ndeysaan te yàlla mbadal bëkkëre ku ma njaay gànna ndooy ndak hmm, daawro fa yaay ma jigéen caam faat ma njaay sàmm sam xaatilee bu bo cheikh yi bàyyi sa bàyyi. Mm-hmm. fatlaay la yaay bi tudd mbéy si jëmmi bala ñaan la bàyyi bi tudd. Mm-hmm. mbéy si jëmmi bala ñaan Demba Tall Falanta Mamour. Mm-hmm. Ramata Mamour Gijaan Mamour Teggi Jéy Mamour Mamour Goncimee Peex. lii laa waxoon Ablaye Sëriñ ma di jàng peex. mu wàññil ma 100000 ma jóob doom ji wàññil ma 100000. ndeysaan man ko da nga raw ba noppi nit ñi tubb la neexoon dem wàccatu. kon mbay noo ngi koy ñaanal aw fanam gudd. amiin yooyu rakk ju baax nga. ndax topp nga ci alaaji Ablaay seen ñaari baay bokk ndey ak baay hmm. Ablaay di sa mag seen ndeyaat bokk lépp bokk jóge bàddañ hmm. waaye alaaji Ablaay gërëm na la sant na la hmm. am nga yar am nga teggin nit ku baax nga nit ku gore nga noo ngi nuyu bokki Sénégal yëpp waa piir Pire ñu ma tudd ak waa Kër ma Touré ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di ñaanal it Cheikh Faye si la nag sama waa ji yàlla guddal fan nga tàgguwaale ndax xam nga waxtu bi ndax képp nañu waaw ndax waa min wi ñu ngi ñu ngi préparé dugg si te xam nga min wi moyen moyen Dakar ñu laaj la sa kàddu gu mujj rek waa sama kàddu gu mujj moom damay tàggoo rek di ñaanal ñépp jàmm di ñaanal Lamine Gueye sama mag ju baax ja ak Baye Samba ak Njaga Njaga Fatou a Samba ba nga ne lañ jur ma nga mbay jaata ci bëgg ay waan waa nga coor monsieur Demba Mbaye Nkase di leen ñaanal rek fan wu gudd wànd wér di ko ñaanal senegal gépp man ñëpp laa bëgg oo moom noonu mm-hmm. peex gépp maa ngi leen di sant góor ak jigéen mag ak ndaw mm-hmm. di sant képp koo xamante ni bii xam nga ma mbaa ma xam la ñi ma bëggoon a tudd ñëpp nag bari na waaye bu soobee yàlla bu ñu dellusi waatee ku ñu fàtte woon rek daañu la daañu la ñëwaat sax balaa gàmm gi dama dama ñëwaat balay gàmm balaa gàmm gi di nga ñëwaat kon Baye Sall waaw yàlla nañ ko teewaat déwén di ñaan fan wu gudd ànd ak wér yàlla bàyyi naa su njaboot ak mboolem jullit amiin di sant sama waa kër ñi ca peex seen ba jiitu mm-hmm. aw aw sekk topp ca mm-hmm. ak aw mbay mm-hmm. di nuyu waa Dakar xàbb gépp di sant xaadim di nuyu bàyyi laat doom ja di nuyu Masayer di nuyu ñëpp loolu rek laay tàggoo jërëjëf daa nga kàddu yi am na solo xam naa ne sax dinañ fexe nga ñëwaat la temps que gàmm gi di ñëw ñu gën koo yaatal waaye alaaji Matar xanaa sa kàddu gu mujj rek ndax waxtu wi ndar kepp nañu baysal xanaa rek di wax ne le décembre bi ren dafa ala daw me mhm. ndax bu lu neufee ñu jëm peex mhm. le 31 décembre Aliou Dia ma koy teew peex mm. le 30 décembre mm. woo ñu ci mbëllëxe mm. te gàmm googu xam ngeen ne cérémonie ba laaj Ablaye Mbaye peex yor micro bi le 30 boobu nag ñu nar a koo fekk mbëllëxe wax naa la fii passé naa ñëw sax télé bi télé bi télé ñëw tele bi sax day ñëw télé bi dana ñëw ah, maa ngi waxtaan ndax waa laa Dame Dieng xam naa du moom Euh, xaritu Aliou la ndax Aliou Dia sax xaritu ñun ñëpp la. la mu wax naa la gàmm googu 1916 la ko El Hadj Malick joxoon El Hadj Daouda mu jóge fii. 49. El Hadj Dia yor ko ba 67. El Hadj Lamine Dia jóge fii El Hadj Moussa yor ko. waaye El Hadj min joxoon lépp nga xam ne nag di porte parole bi. wax naa ne bu bu bu maamam yeewu woon. du ko wax na ko ko kii la parce que euh, tey courant ba dem na fa. réseau téléphone yi dem na fa. mairie na almeer yi defaraat na jumaa ji. tëlibaa ñu ngi koy ñuulal mu jëm foofu forage yi bënn na waaye nag di nuyu rek bu baax sama xarit sa xarit ki nga xam ne nag di kenn ci man wax naa la Aziz borom ñaari bii yi fu ma toll dinaa ko nuyu nga xam ne borom faja dootul borom faja borom kunu mais kañ nga ma yóbbu ci Aziz Aziz moom da nga dem borom ñaari bii yi nuyu maajee nuy nuyu sama xarit waaye nag nuyu sama soxna wax na la daara gépp a lay seetaan surtout nag le ministre de l'agriculture damay fàttali sax mardi bii di ñëw waaw ñu ngi ànd ak alaaji Alelo Daara Jolof na ñëw sama rakk bopp day ñëw mardi bii di ñëw. lay tukku ma ñëw maamam la jàmm mi ngi daara jolof sama rakk bopp ku xam ko ci waaw waaye nag kenn ku ne xam ko ci course waaw moo tax. Uh-huh. éléments yi nga xam ne moom la ñu waroon a indi mardi mm-hmm. gan leen koy dencal ba bi ñu ànd ko alelo sa rakk gu mujj rek waaw xam ne mm-hmm. lay tukku ma ñang maamam lan wayloo jàmme mu bañ mm-hmm. uh, dinaa ko gërëm di la gërëm Baye ndax ni góor gi wax rek yaatal nga wax dëgg yàlla muy koo xam ne toog naa ndayam gërëm ko ndax bërki démb dama na ko Baye loo def looy def yokk ndax man maa toog sa ndey si bopp na lekkoo dara bakko gërëm na ko de walaay gërëm la man ñëw naa peex ñaari yoon waaye wax mun a Baye Sall bàyyi mit gërëm na ko sa waaw bàyyam gërëm na ko waaye ku sa ndey gërëm rek sa bay gërëm na jërul wut gàllaaj xale baax waaye kon yow Baye Sall lay ñaanal yàlla na la yàlla defal jàmm ah amiin amiin ko géwal léegi amiin nag di sant sama sama sama doom Pam Mbengue nga ñu wan gën ko xam ci Pam Mbaye mhm. moom moo nekk sama taaw mi ngi foofu ci Mermoz ànd ak Magor Sow ak Daba mbay sama soxna ñoom ñëpp maa di nuyu di nuyu nag waa Peex di nuyu sama yaay bu baax te di ko ziare ba kër ku ma njaay gànna di nuyu mbenn mbay sama aaw buru këram ak Faama Seyna bu Mbay ñoom ñëpp maa ngi leen sama jigéen rek la di la di la wax ni di ma wax rek ci directeur général sama yaay ma fàtte Samba Ndiobène Ka li nga wax ci directeur général tamit Eh, ki nga xam xamante mooy Souleymane Ndiaye. li mu def démb ku ne gis na ko. waaye nag di ci nuyu waale bu baax madame madame Balde. di nit ku yàlla baaxal di jigéen waaye nag ndam lu Souleymane Ndiaye am sab ko rek eh, tabarkalla macha allah madame Balde eh, loxo mu ngi ci biir maa ngi koy sant bu baax di ko nuyu di nuyu waa Mermoz di nuyu Bijou di nuyu waa Mermoz yëpp 2024 di nuyu nag Cheikh Mbacke Dieng borom projet yu mag yi nga xam ne foofu ci Mermoz ñoom ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di nuyu Dame Diop sama jarbaat euh, di nuyu waa pex yëpp téléphone bi mu ngi xartu ku ne ngi may woo waaye di wax daal Souleymane Ndiaye. borom Sapko borom Sapko li mu diggoon président lépp def na ko. Hmm, Casamance. borom Goudomp. Goudomp digg président lépp def na ko. dem hmm. boo tabbi woon. rajo point 96.1 Dakar 100.4 Kaolack 87.8 Mbacké Touba 93.1 Ziguinchor rajo Leral encore plus proche de l'info rajo ba ngeen doon xaar day yegsi na rajo leeral rajo conducteur yi rajo taximaan yi rajo chauffeur yi 96 point 1 ci Dakar 100 point 4 Kaolack 87 point 8 Mbacké Touba 93 point 1 ca Ziguinchor rajo bi leen di gën a jegele ak xibaar rajo buy leeral ak rajo leeral léppay leer ak rajo leeral kumpa jeex na